le beau le président taille courte ana ñu ànd ak monsieur Bougane Gueye Dany mais ànd ak moom <laughs> ana ñu ànd ak <laughs> ana ñu ànd ak Siré Sy <laughs> ak Abdourahmane Diouf ana ñi ànd ak Mor Faye ay nit ordinair ordinaire Mor Faye Mohamed Ben Diop ana ñi ànd ak Moussa Diop ana ki ne ki ne président tudd noonu <laughs> ana ñi ànd ak maître El Hadj Diouf mais metre <laughs> maître la ñaata maître ngeen xam ah ok yéen man ba tey yéen gisuma ki de ci internautes yi ana ñi ànd ak Aminata Touré mii mii ngi ñëw mii mii ngi ñëw ana ñi ànd ak Assane Niang ana ñi ànd ak Babacar Diop ana ñi ànd ak Malick Gakou Malick Gakou Malick ah, fii du Guédiawaye maa ngi jégalu ana ñu ànd ak Déthié Fall l'homme euh, élection yi passé Malick Gakou li mu am ci voix sax sama yoon nekku ci waaw non non non non xool dimbali ma rek bu yow li loolu bu yow loo wax sama am ci élection bi passé trois voix pour yow naa pour yow waaw pour yow loom moom noonu ndeysaan loo ma gën a neex loom euh, man ba lu ma wax rek man ma waxaat ko en direct te nekk en direct naan ma ay aba ay waxal Malick Gakou moo amoon élection yi passé trois voix waxuma waxuma ñu yeggali ana ñi ànd ak Déthié Fall ana ñi ànd ak Khalifa Sall ana ñi ànd ak l'homme le bonhomme l'homme de tous les temps ana ak l'homme le bonhomme ana ñi ànd ak Ousmane Sonko

ñu toll ni Rizador Iwil Zador Aziz Alé ak waa bureau bi yëpp maa ngi leen di kontaane ah. waa bureau bi yëpp ah, maa ngi bég ci ñoom Miss Ndiaye ah, maa ngi bég ci ñoom Matamati Ndiaye ah ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci bureau bi yëpp Baye Ndiaye Ndiogu Mbaye Mas Kokki ñëpp rek waay kan waay ñoom Abou ñoom Assane ah Assane maa ngi lay bégee bu baax a baax encore une fois Assane maa ngi lay kontaane ñoom. Ndiogu Mbaye ak ñëpp rek di ñaanal yàlla Aziz Ale mu yàgg fi te wér te xam ni ceeb bi ak huile bi dina ñëw seetu Sénégal teg ceeb bi euh, teg huile bi waxtaan ci lu rëy parce que tamit euh, lu lu ñu war a jaay rek ci réew mi xam nañ ni bu jaarul samay loxo mbaa mu jaar fii euh, dina manqué li nga xam daf cee war am donc Aziz ak Baye yéen rek la ñuy xaar fi ñu ton ni Orange ñu ngi ci li nga xam ne mooy promo bu am solo promo bu doy waar promo la boo xam ni le 10 11 ak li nga xam ni moom mooy le 12 dañuy ànd ak yéen ci promo boo xam ni boo jëndee à partir de 500. am nga li nga xam ni moom mooy 300 euh, pour cent de bonus boo xam ni dafay ànd ak yow 30 jours waaye boo jëndee li nga xam ni mooy 1500 ba 1000 1499 euh, da ngay am ba 600 euh, li nga xam ni mooy 600 pour cent de bonus boo xam ni dafay ànd ak yow 30 jours nga mën cee woote. fépp mën cee woote fu la neex donc mu ngi noonu ngeen yëgandee ko noonu à partir de euh, li nga xam ne mooy 500 nga dem ba 1499 1500 lépp rek loo ci jënd da nga yëg sa bopp bu baax a baax ci euh, li nga xam mooy promo bi nga xam ni moo jëm à partir de 8 heures lay tàmbali euh, dem ba fi nga xam ni tarkal la moom mooy heure bu la neex léegi nag nañu dem antandooy maa ngi lay kontaanee bu baax antandooy cees ku jong maa ngi may nuyu nii ku jong bu mool maa ngi lay fay antandooy maa ngi lay fay bu baax man nag gis nga man. namm naa la sama xarit bi maa la raw antandooy ma nga Cees doom yaayu euh, sëñ Fallou PNJ maa ngi leen di kontaanee les amis PNJ donc bu leen fàttee tous les mercredis à partir de minuit euh, dañuy ànd ak PNJ euh, ci li nga xam ni moom mooy seetu bi mais seetu bi PNJ show ngeen am ko tous les mercredis à partir de minuit loolu na ko ñëpp xaar ay star incontournable ay star yu ngande ngande ngande lañ ci invité donc na ko ñëpp xaar suba incha allah dinaa ñëw def ay remerciement ci clients yi maa ngi lay xaar Omar Cheveux ñu ngi lay xaar bu subaak jàmm euh, incha allah yow suñu xarit nga nuyu naa la nuyu naa la en direct sama xarit bi Anta Ndoye Anta Ndoye Thiès nuyu ma sëñ Fallou moom mooy sama xarit Anta maa ngi lay kontaane bu baax Anta ku Anta mool waay ku jongama longue vie à fii fils euh, maa ngi leen di kontaane bu baax a baax Amar Darmanko hmm? Firenze maa ngi ñëw ci yow léegi Amar maa ngi ñëw ci yow léegi Wally Seck euh, le 29 dafa war a dem ci Firenze ah ki nga xam ne moom mooy Arma euh, nga xam moom mooy Amar euh, moom ko organisé ginnaaw bu noppee le 22 du ñibbisi dafay continuer Firenze le 29 na ko ñëpp xaar Wally balago Seck ak waa Ramdan bu ñu paree euh, fi nga xam ni moom mooy Italie euh, fi nga xam ni mooy Brescia le euh, ñu ànd ci ak ki nga xam ni moom mooy Wave Wave Production donc ànd ceeg Iba sama xarit bi dañuy continuer dem fi nga xam ni moom mooy Friends donc Wally le 22 Italie ak waa Wave ak ki nga xam ni mooy Baysal Production Wave ak Baysal euh, Wally Italie le 22 euh, ñëpp ñu ngi koy xaar ñëpp yàkkamti nañu ko ca Brescia mais bu ñu fa noppee Wally dafay yegg fi nga xam ni moom mooy euh, ca Firenze donc loolu ñëpp a koy xaar et léegi-léegi ci kanam dinañ ci ñëwaat gën ci waxtaan ba mu gën a aba insister ci match bi am ci diggante waa Dakar Dem Dikk ak waa génération 2002 wax naa ko Zirima mooy jus bi nga xam ni 100 pour cent naturel sans colorant ni arôme artificiel damay lire jus bi étape par étape ñu ngi ko defaree fii ci Sénégal biir Dakar cent pour cent naturel jurement est disponible sous format deux cent cinquante ml cinq cent bi am na ko ko naan baleen jiwu jàmbur bi ngeen di naan ji bu ngeen romu naan ko baleen ji bi baleen ji bi 500 ml bi naan nañ ko 1 litre baa ngi nii am na 1 litre 50 tarkalla mu nekk jus am solo wax am na li nga xam mooy gingembre maanaam jinjeer tarkalla xam ngeen ko am ananas am na li nga xam ni mooy buy am na li nga xam ni mooy lait bissap blanc. et rouge am na li nga xam ne mooy ananas am daqaar am li nga xam ne mooy ditax am na li nga xam ni mooy cocktail am na mangue am na ay xeeti baax baax yu baree bari yoo xam ne mu ngi ci jus bi yéen ñi ko bëgg te bëgg cee procurer réew mën ngeen woote ci 33 845 13 13 wala ngeen def 77 def 186 a am ci jus bi nga xam ne mooy juriment am nañu site internet waaye mën ngeen ñoo envoyé ay message ci suñu mail wax li nga xam ne moom lañ ci am li nga xam ni moom mooy les parfums wax moo am ci jus ngeen gisee énergie bi nga xam ni boo koy waxee da koy joxe di ko génnee muy génn énergie bu naturel la bu ngeen gisee abaa am tonus bu leen seet tonus bu naturel la li nga xam moom laa àndal moom mooy Royal Mix Royal Mix tabarkàlla mooy boisson énergétique wala boisson énergisante bi nga xam ni moo ñu indil li nga xam mooy tonus bu naturel amul taurine amul aspartame yaakaar naa ne ci grande surface yeeg ci boutique yi foo dem da nga ko fay fekk mën ngaa dugg ci suñu site internet www.royalmix-nga def Sénégal def point com tarkal Ibou kaay ma nga ñëw présenté émission bi te xam ni fii sa kër la nañ dem euh, li nga xam ne mooy suñu TikTok am nañ ko am nañ TikTok am nañ li nga xam ne mooy Instagram am nañ li nga xam ne moom mooy Facebook am nañ li nga xam ne mooy Twitter yooyu yëpp am nañ ko le temps mu souffler ñëwaat nit affaire yi na équilibré El Hadj Malick yaa ngi naa man nañ dem xool une page de pub te ñëwaat mais El Hadj Malick page de bi lu tax du ngeen ci def am di cuus mais am di sama partenaire la même bu fayul maa ngi ci yëg sama bopp nit ci li ngay jàngu nit ci li ngay liggéey ci ngay jàngu yàlla 77 la 417 50 08 nga am crampon am clinique am yëpp dàll yi ma sol moo ma ko jox dàll yi ma sol am dee ma ko jox dàll yii yii am dee ma ko jox mi jàllale leen publicité bi bu ngeen ko jàllalul nii laay mën a def après ma dagg ko ma jox am ni mu xam ni kon moom jàll na ci télé bi 77 la 417 50 08 am di cuus nit ku baax la xale la bu nekk ci réew mi di daan doole mais jàll leen ay yëfam ah yéen kiin ci seen yëf ah am di cuus séeri Kenza bàyyi bàyyi ñes élection yi ba tey jeexagul des na benn candidat moo dëkk Kolda moom la ñu dénk CDC baayu Zeyna ak Jeyna baayu Badou chéri Amélia maamu Amélia le beau gosse le gentleman dans la tête l'homme qui a le corps mais le brain américain l'homme de tous les temps le maire de Kolda le DG de CDC candidat yi jeexaguñu des na benn candidat ñu essayé avant ma leen di laaj ana ñi ànd ak moom ana alaaj Malick kilib alaaj Malick maam booy jawok gin cak cak maam booy dégguma gin cak cak alaaj Malick kilib looloo am. yàlla rekk moo ko xam ma way kon ma way ndax dama kontaan ci yéen loolu ma way Asim demek téléspectateurs yi ana mbay euh, ñu xool euh, fan la ñu yem nga xool ñooy defal teraanga le temps émission bi di euh, dem parce que am nañu invité bu war a ñëw way donc nañu xool fi ñu toll nii fu ñu yemoon ñi nga war a jox ay xéewal ñu am ko ci ñi nga xam ne ñooy internautes yi ñoom tamit ci yëf bi lañ bokk. te envoyé waatoon nañ la parce que am na am na lu ñu ma envoyé waat. Mhm. nañ leen ko jox rek lépp mais fexel ba. Mhm. mu yem ci yi may envoyé rek. waaw li nga xam ni maa ko moom nga bañ cee dugg. yàlla bari na sutura. parce que yi ci nekkoon sànq joxe naa 3. da ngaa joxe 3 mu desoon mais est-ce que ñi nga jox di nga leen wax ñu envoyé la SMS bi. bien sûr bi de moom moo dem dama bëggoon ñëw xool fan la live bi tool xaar maa ngi ñëwaat léegi xool connexion bi fu live bi toll. wax nañu yee ana taay bi ayca nañu ayca mën nañoo gaaw le temps mu yegg si. Euh, ñu xool lom euh, Mbaye yaa ngi ci Facebook bi. waaw maa ngi ci Facebook bi demal foofu xool. donc commentaire yi ak partage yi yokku na mooy li la doon wax. fu mu toll nga xam ne instant bi commentaire yi mi ngi toll ci donc bëgg nañ ci plus donc damay xoolaat yeneen trois personnes ma may leen kenn ku nekk vingt mille francs Mhm. parce que dese naa 70 wala 3 personnes kenn ku nekk vers 15000. nga dem waaw en attendant quoi. ci xaalis bi nga xam ni. moom moo nekk ci sa. wéef moom lañ ma jox. waaw nekk mooy sa xaalis. waaw waaw donc ay ca ñu yokk commentaire li nga xam ne moom moo di partage yi damay jël benn numéro soxlawul may joxe al ma téléphone wéef bi waaw ni bi fu ñu envoyé rek baax dañuy ñëw. mu hmm? laal orange money. ñoom ñëpp benn ñoom ñëpp benn la ci man aw ma ci kenn du ci sama partenaire. laaj sa ñaari compte ah ma ne man laa ñaari compte yëpp. xaaral ma xool ba xam am na lu ñu ma envoyé ci Orange Money bi. waaw mais bu fekkee envoyé nañ ma foofu ak fële. nga laal fii di laal fële. Hmm. parce que aw ma ci partenaire. wala ma xool a bu ci connexion bi gën a ñu dem. aje da ngay egg si doom fi ñu toll nii nit ñu a ngi laaj histoire bi ñu ngi yeggali ko. fi ñu tolloon ñoom ñoom. Karim ak internet yeeg ñëpp ngi naan ñu yeggal histoire bi fu ñu ci tolloon ak yooyu donc dinañ ko yeggali euh, mais euh, nañu xaar mbay may benn nit wala ñaar après ñu yeggali histoire bi euh, fi nga xam fala fa la yemoon histoire bi yow fi yemoon may naa trois personnes fi mu may nga soit en attendant en attendant léegi le temps ñu yeggal histoire bi wala ñu bàyyi la nga yeggal non non léegi non non xam nga lan laa bëgg fi toll nii mhm. ma mayaat yeneen yeneen nit ay chance ñu dolliwaat euh, commenter dolliwaat partager comme ça ma mën a yokkaat kon ñu tuuti le temps ñu yeggal histoire bi fi ñu yemoon ci histoire fi ngeen yemoon mooy bi nga waaxoo tourné yem ci moom fan la tourné yem ci man ba xam yow yaa ngi war a concentré wu yaa may dégg fan papa ah, man dama mën di déglu ba xam ah. en classe yaa ngi suivre wala suivre oo bàyyi naa connexion bi. yow yow la déglu fi ñu toll nii. kon Mbaye déglu ma laa yemoon ci soir bi. sam papa fi mu yemoon mooy bi mu tourné yem ci yow. yaw mbay fan mu ne nga pare. fan. ci mbedd bi. nga pare li nga doon def. ah sam li mu wax. waaw mu ne. mbay non non non non non non mais mbay dama ko laaj fan la yemoon bàyyi ko mu wax. mais mais noonu laa ko doon moom noonu la ko mën a expliqué. ah après ma laaj ko fii la koy waxee fii en direct. fii nga ko waxee. lan la ñuy def ba pare sol tuwee. sangu xaftaan rek ak piedement. sangu. boo weex sa sangu boo weextaal loolu la. sangu ayca eggali yow eggali. mu yem ci yow di wax ak yow rek nga bëgg ko napp jël ko jël bu njëkk. Mhm. léegi nag suite boobu jël bu njëkk bi loolu nga war a loolu lañ bëgg xam. 18h lay yegg non. non non non 17h30 la ñu waxoon. mais comme affaire yi dafa xat ba lu nekk xaj fi. moo tax ñu koy xaw a pousse mais fi ñu toll nii euh, mën nañ cee ñëw. Mm. bu fekkee. daa baax rek mën nañu cee ñëw mais il faut ma xool euh, commentaire yi sama moo jékki-jékki rek. est-ce que mënuma mayaat ñaari nit. connexion moo jékki mayaat ñaari nit. mën ngaa maye léegi le temps man may lijjën sama connexion. waaw bay ñëwaat Adja mën naa mayaat ñaari nit. aja donc damay may ki nga xam moom moo di fàllu xuma dama koy may. Adja mayaatal jigéen de. moom laay xool nii. Adja Ndeye Maguette Samb aussi itam dama koy may ñoom donc ñaari ñooñu laa choisir agum nii fii ak ci kanam dinaa tànnaat beneen juróom balaa émission bi di jeex ku ëpp lu mu commenté ëpp lu mu partagé rek dinaa ko mayaat moom aussi tam ci kanam tuuti léegi nag euh, man fi ñu yemoon waa kay mu ngi noonu mu ngi noonu ñu yeggali mhm. euh, fi ñu mooy li ma doon wax xaaral ma parce que am na ñoo xam ni dañ ñoo dab dañ ñoo dab il ñoo xam ni il ma laalaat tuuti ci commencement bi euh, ñëw ñu yeggali histoire bi mm. non non non ah, pas en arrière damay brief rek mm, parce que fi ñu yemoon ci histoire bi mooy histoire mbay bi ñu nekk seen TV mhm. da daan def bu ñu wàccee daf ma daan wax ni faj euh, kii tey Fall kii laa lay jox. d'accord war na ko ci image. maanaam gel laaj ma waa laaj ma ay investissement ma investir. yenn saa yi mu ne ma laal ko vingt mille ma jox ko transport utal ko lu mu lekk. papa doguma la ñu ñuul la woon gel yu ñuul. wala ay xale yu baax ay xale yu baax lañu. xeet yëpp la. Ah, mbay dafa yor mbay yii. d'accord. mbay temps yi soxla sa mbay mbay temps yi ci nekk man nag boobu fekk na ma am soxla man moom temps yi may maygel fekk na ma am soxla célibataire la waaw yow waaw yow fekk na boobu ma am ay trois ans de mariage yu ma neex yaa may mbay ne ma xale yi laa la jox boobu maa ngi seen TV boobu fël fëla boobu ci yu ma neex laa doon def boobu dama doon def boobu dama doon jël ay yeneeni xeeti boobu daaw ataaya boobu daaw ma na ataaya daaw ma naan sucré. kaani boobu waaw boobu temps yi dafa métti woon réew. <laughs> temps toog ci plateau yéeg ci kaw plateau bi. wala ma jékki-jékki def émission ba émission bi jeex ma yàq plateau bi suba ñu defaraat tam beneen plateau. Mhm. mbaa ma bàyyi yee. temps bu ma daan dem tukki daaw ma tàggoo damay jékki-jékki rek dem su ma ñëwee dañ koy dagg. Ah, waaw boo gisee ni commencé waat naa ko fii rek ngeen xam ne la ma la ma la ma utiliser commencé waat naa ko utiliser <laughs> il faut laa dem du ma tàgg kenn mbay daf ma naan woon ay image ne ma faal tey kii laa lay jox mais chaque timis mbay danaan mbay danaan ma mbay danaan envoyé benn SMS mooy sa invité bi la moom la téléphone bi sonal noonu mbay chaque timis mbay danaan envoyé SMS oh moo ci njëkk oh après oh bi empêchement wa ci topp fa xale bi dafa jàpp wala xale bi tey mënul ñëw yooyu la yàlla di dem ba bis mbay laaj ma vingt cinq mille du ma ko fàtte sosom bi ak du ma ko fàtte ne ma faal xale bi laa yoon mbay xale bi ma woon ma gis ko mbay moo baax rek laaj ma vingt cinq mille <laughs> mais bu ma laajoon cent mën naa ko ko jox mbay ne ma am na frais technique parce que moom war na xaw ma lan jël xale bi frais de transport xale bi bu ñëwee da ko war a defar reer xale bi daa bëgg ay neem dafa mel loolu wax na ma ko xale bi day lekk waa yooyu yëpp mbay mbay bi ma wax yi ma yëpp ma jël mbay jox ko vingt cinq mille lu ma nekk na xale bi lu ma la xale ni la ci xale bi nekk dafa yow da ngay mm, yow da ngay mos produit ba pare soo ko jox client. ok mbay ne ma fal xale bi yéen ba bu leen reetaan gum bàyyi leen ba bàyyi leen ba histoire bi jeex internet yi waaw kay kii euh, Fary Diop maa ngi lay kontaane ndeysaan xoolal Fary seen xol sedd na yàlla na seen yàlla na seen jàmm yàgg mbay jël sama xaalis dem seen kër ma dem sama kër. c'est que heure reer lañ ma yónni ma jëndi mburu bu fekkoon ci diggante boobu man sieste naa sieste ma ne kon dama doon gént mais sieste suma dama ñëw sama kër ma dem sport ñëwaat ñu yónni ma mburu reer sama kilifa moo ma yónni woon sama borom kër maa ngi koy nuyu may jënd mburu reer yàlla woo yàlla bu la waree weer ma dajeeg mbay mbay mënu maa nax xam nga lu tax parce que mbay dama ko gis mu ànd ak xale bi gumbawu ma dofu ma ma gisee xale bi xam naa ni kii la ma mbay wanoon tey ci suba ma ne ko mbay awma ma temps ak mbay parce que maa ngi étudier mbay mbay tubay xaftaan la sol ak survêtement weextal ma xam ne kii mu ngi soog a pare ba pare maam booy soog a pare boo solee tubay xaftaan bi xam nga ci biir daar ma ne ah mais comme comme comme boobu énervé naa ma ñëw ne ko eh mbay mbay mbay ne ma faal faal. ma ne naa ko may mu wax xam naa ni am na xam naa am na lu lu mu bëgg a wax faal faal ma ne tekk di ko déglu mu ñëw ba ci sama xam nga mbay dafa bàyyi xale bi ci ginnaaw avancé ñaari nañ ñaadam ñaadam ñaadam ta paa yu dëgër ñëw ba ci sama nopp ne ma kii coow la gën a bañ ci àdduna élargement rek nañ dem xool une page de pub. te ñëwaat léegi laataa ñu jël invité bi ayca ñu dem xool une page de pub te ñëwaat la en quantité wala nga dugg suñu site www.jurima.com suñu mail jurima naturel point gmail.com. jus Rima yéen waa Sénégal entreprise bii mooy defar jus 100 pour cent naturel yi jus Rima la tudd muy un délicieux mélange de jus locaux avec des ingrédients frais et savoureux lépp di 100 pour cent naturel 100 pour naturel boobu nag la ñu bëgg a ndax suñu yaram lépp lu naturel moo ci war a dugg jus Rima 100 pour cent naturel gingembre ci gingembre ba am na ananas am na citron ak ndox donc nga cay dem 100 pour ba moo daxati 100 pour fu ñu ko bu du taxaw ndax am na meew ak ndox dong nga cay dem jus de tamarin rima ah jus di tax ba ah jus buy ba fépp fu ñu ko yóbbu jus de buy ba du des ah buy 100 pour cent naturel waaye Jurima bisaab bisaab ba naanaa lañ ca def ak naturel Jurima 100 pour cent naturel bisaab blanc àndandoog ananas lépp naturel Jurima 100 pour cent naturel suñu numéro fixe 33 845 13 13 wala 77 186 64 64 wala 70 607 10 10 wala nga bind ñu mail ñu livre la en quantité wala nga dugg suñu site www.jurima.com suñu mail jurima naturel arobase gmail point com Real Mix Premium Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité. Des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant vers une meilleure consommation. Enrichi en vitamines essentielles, Real Mix Premium Energy Drink prend soin de votre bien-être tout en vous donnant le coup de boost nécessaire pour rester en forme. forme. Optez pour une boisson énergisante, sans taurine, sans aspartame, mais avec un goût irrésistible. Real Mix Premium Energy Drink, c'est du tonus naturel. ayca mi ngi doon waay El Hadj Malick waay seet teet teet teet am di Thious am di Colobane 77 417 50 08 ah waay yow El Hadj Malick lii rafet na de c'est lii nekkatul ay crampons léegi pour football pour sànq la crampons yi de bu ma ko laalee président laa ci seeti nank ci Mermoz bi fii jëm seeti kon nank ne ko président léegi nag loo gis dañ génn petit camp bu ndaw dafay ñëwaat yeggal suñu waxtaan yow tey da nga euh, invité euh, benn booy far nga fekk kii kii maa ngi ko fekk fii sorewul benn yoon muy euh, ñaari tali ñaari tali la dëkk mais en même temps ma nga Kër masaar donc moom ñaari gox la am mhm. bi mu débuté li nga xamante ni mooy way bi day def way en même temps day def hip hop Ah, yàggul day rab di way mm-hmm. euh, un an rek la def mm-hmm. xale la donc tuddee boppam metti booy metti booy ma ne ko nag dinañ xool metti bi metti booy mu naan yow meen salaamaaleykum avant tout maa ngi leen di bëgg bu baax a baax sa caméra ngi ne maa ngi ziar Aba d'abord ça fait plaisir d'être la avec vous franchement partagé, et Ndiémé aussi sama sister bu baax maa ngi kontaan ci aussi invitation bi ba pourquoi metti genre metti bi moom judduwaale la pour commencer bët su may jàngi high school et tout ça. yeah damay jëm fort xale yi di ma topp comme dab you know the vibes noonu la demee ñëpp di ma wooy métti métti ma ne pourquoi pas damay wooy ma ñëw tude sama boobu métti booy genre rew xam nga da nga war a tuddee sa boobu li nga xamante ne tey jii bu ñu déggee sa tur wala dara genre gars yi dinañ attirer seen atta di nga attirer seen attention you know the vibes noonu la demee quoi foofu la jógee. papa métti na. <laughs> alors lenn laa lay hip bi nga euh, bi ngay def ak way bi est-ce que ñoom ñaar ça va quoi parce que bokkuñu dara. ba si mais dama gëm ni artiste boo jëlee décision nekk artiste ba waroo ñëw ni way laa mun wala rab laa mun fu ñu la woo da nga war a mun a wuy si te man loolu laa gëm te dama gëm sama boo xam nga ba gëm li may def gëm ni métti métti day métti rek parce que seul difficile seul difficile est le chemin lu jot day yomb. mais un an kase nga def. yow nga def un an rek la def ci ci ci ci game bi. Mhm. un an kase nga ne yow yaay metti booy mën nga rap. mën bala way euh, kii njëme ngay yeggale ci biir game bi un yi yow mën naa la gis mën nañ gise kañ euh, booy metti booy. <laughs> metti fépp. <laughs> non non non dama bëgg gisante ak yow balaa may wax ak. Euh, métti moom dafa neexaale mais métti dafa non mais métti dama fàtte bi koy présenté waxaale leen. mu ngi joxe téléphone dañ ko ko dañ ko dañ dañ ko dañ ko ko dañ ko dañ ko ba pare métti ah, ah métti yow li ngay métti yëpp bi nga yor. dañ koo tafu démb. Ah, ah. dañ koo tafu mu daal di kon yow da ngay métti métti lu. ñu ne tafu la gën a métti mais booy. Euh, yow fër nga dëkk yow ak non non sax seen waxtaan sax ma du ma ci dugg xaaral ma toog si non ci nga ngeen maa manqué de respect ay wax xale ngeen parce que yópp yee yópp yee gi mu ngi commencé di bëri samay nopp yópp yee whatsapp yaa ngi noow yaa ngi sii yaa ngi mën nga fee wax ba wax ci ay fokk xam nga ay fokk mën na ah, booy xam naa seen langage xam naa ko eggal leen seen waxtaan maa ngi suivre moo bu débordé ma arrangé waat ko ñu yeggale un an bi laa wax nga def bu eh, booy yow bu waxal yow ah <laughs> non mooy caaj bi mooy caaj bi non non amul caaj eh booy amul yow laajaat ko booy bu loxaat yow bu loxaat yee tontul direct. yow ak yee amul kon ok un an bi laa nga wax ma pourquoi un an juste nga ne yow mën nga way mën nga rab. ba because I I. Eh, ba. Eh. <laughs> let ah, <laughs> ma ba pare li ci garaaw mooy. de da doon def bac deuxième tour la jàll. jàll jàngkat la non non mais jàngkat la. jàngkat mooy jàll macha allah yàlla mooy am na bag rek waaw am na bag rek am na bag macha allah hip hop bi ànd ak bag bi c'est important ayca ayca ayca ma naa ne I believe to me te te dama gëm ni affaire war na mën a nekk parce que lu nit am joomul nit en fait ñu ñëpp ay nit lañ mhm. nit ki lépp loo nekk gëmal sa bopp xam nga wane si fulaak fayda de si fulaak fayda te yàlla aussi mooy may mais aussi yàlla day may ki nga xamante ne day jéem xam nga di forcer di dem xam nga bu jotee rek yomb ñun loolu lañ gëm quoi parce que gëm nañ suñu place mu ngi te yàgg yàgg koy jëli. bu soobee euh, moom mooy invité ay xale yoo xam dañoo bëgg way bëgg animation bëgg humour bëgg yooyu mooy invité bu ñëwee ay invité am lañ ma ci dugg mais man fi ma lay xaar foofu la la yàlla di xaar ak internet yi yi. mooy waane waane lu beeg sa ngande ngande lu gi ndax mën nga xam nga man euh, mën nga gi rek man moo ma intéressé bu ma paree damay laaj téléspectateurs yi booy ma dagg de bu ma doog moo pare damay laaj téléspectateurs yi ak internet yi est-ce que mi metti booy mi mën na mu continuer wala bu mu continuer te liñ ma wax fii liñ ma bindal fii maanaam du ma ci teggi rafetul ay nii loolu laa lay wax nga beew noonu yëg succès naan yopp yee ay believe me ay big because xam nga bët yooyu yëpp nga fi indi booy li nga fi indi yëpp am na fi mais dañ lay bàyyi comme yaay invité bi yow dañ lay bàyyi nga doxal da nga doxal ak moom ba heure jot ñu xool léegi man man kay dama bëgg mu wan ñu dara léegi. mu def fi dara mu dara léegi yow après ci fin bi ñu soog a playback ak moom. dama bëgg waa mu doog a indi li nga xamante ne mooy single yi mu génne. ñu xool ndax mën na waaye waaw d' abord. léegi fii nii fii nii li nga ko gis table bi. Mhm. wala ci li nga xamante ni mooy studio bi lan nga ci mën a improviser. ah pour mu freestyle. waaw mais yow mais yow xanaa yow. def naa game waaw. <laughs> def naa game. ah kii ku koy jaay boole. ah. fàtt fépp ankay ne def naa gain. non am na animatrice buy def comme ni nga tey kooku moom def naa gain. c'est hip hop ok yow la àdduna di déglu fi ñu toll nii yow la doon xaar. le moment opportun. nga freestyle ci li nga xam ne bu doobee tout ça. it's not a problem for me we gotta go again. go. <laughs> listen to me please. waaw gars yéen a may seetaan yéen a validé n'est-ce pas. non ñii ñooy spectateurs yi ak ñii ak ñi seetaan internet yi ñoom ñooy wax mën nga wala mënoo. yes you ready. Mhm. yow dama màtt rek ñëpp dagg sëriñ di ma tagg sama leer di yokkoon maa fi daax tey ma tas fi génne la kër gi wëral la ñaari tur nga toog yi xëcc la dóor la ku nga tëddi toog si di ko teg si tam xool ku neex ma jël fii jox la njëgu taxi xëcc la dóor la neen la pousse fii maa téye game bi su ma neexee fuuy fii maay def bës bi ku mu neexul taalal gaz toog si fan si naan wàññil niveau bi balaa nga leen di roy fii du xanaa may king bi rab bu fi wax ma giddal man la boy bu ñëpp di wax I'm the the king nigga man yokkal ma bit ma zaloon ne teg ko si accès di craat nga jox ma show ma flirté mbala mu dool nga dali fee may bind nga ne du dem toggal di wax may avancé nekkal génn fa ne yaa daab fekk na ma yow di ko teg temps tàng bu toog rek dëgg dee mais tu fay taax tëdd fay man laa yor tëdd jaay boo wee dee laajal ma fay take not enemies look at me very well I don't have a time when I was working hard you were sleeping so shut what you want everybody shoot for real maa fi ne for real for real maa fi ne. na. donc mën na mais internet yi bu baaxee da ngeen may ay kër su fekkee dara baaxul am na benn mais bu def nii am na benn mais bu def nii su baaxul moom lañ koy jox mais su baaxee ñu may ko ay kër ñu xool euh, mooy métti niga donc foog naa ni euh, freestyle bi mu def nii euh, moo ko moom moo moom daal moom loolu la mais freestyle plateau bi maanaam xoolal li ne ci plateau bi nga impro ci nga def ci freestyle ñu xool eh gaaw ngeen may ay kër xaar leen rek xaar leen ba xam ndax mën na wala parce que li mu yor nii moo ko indaale ñu xool ba xam mën na waaw wala déet acca MC Metti improviser le plateau bi waaw ay juriment la neex ay ruel mix tampon yi ay techno aba sama neel bi nga xam ne ñëpp ci dañ jaar donc yëpp impro yow yow kii mën nga impro fi ñu nii mënul de. <laughs> gis nga. yow yow yaa yaa may aram tu naka jekk nga taxaw ma ni yow da ngaa réew. parce que. <laughs> yaa ngi dama koy juddowaale réewoon de kenn mënu ko bañ mais boo mënee da ngay réew mais yow freestyle nga indi freestyle boo xam ni yaa ko bindoon ba ngay commencé. ñëw fii freestyle eh, ku wedd na laaj mm, ma dem fay. non yow yow. je eh, leen ma seen kër yi xaar leen xaar leen def leen nank ak seen kër yi kii mënul freestyle impro. impro nga freestyle. waaw bu nekkoon impro kese moo tax ñuy wax xam nga kon ñu bëri dañ leen seeb fet tey jii ci game bi man xam nga je fais les deux en même temps day yéeg ci kaw ne nañ ko jox benn accessoire. ñu jox ko benn accessoire moom kenn la fi. waaw Iswan boo ko limee kan ngay limaa du kenn. waaw that's right. waaw. mais eh, day téye ay crampon ne li yor nii moom mooy crampon béy bi boo koy xool day men ni gis sa tampon bi lii nii crampon ah si. si am ah, ah, déet li daal la. maa ngi téye sama benn micro ñëw di ci wax mel ni ku am ay. yaa ngi dégg. depuis ma téye microphone bi ñëpp di dox di téye téléphone gëli di ma phone ma leen di jox ay téléphone improviser la lay tegal. yaa indi li dara bàyyi ma eggali. acca acca acca acca téye acca sa microphone. daf ma téye microphone ñëpp di dox di téye téléphone gëli di ma phone ma di may ay téléphone improvisé laa lay tegal toog si télévision di longue vision ba tey maa ngi nii toog di vision yaa ngi improvisé na jox def na improvisé may nga ko téléphone. téléphone non non non mu téye téléphone bi mu improvisé. ah improvisé si téléphone bi. call. je valide eh, gum xaaral rek ki naan je valide ayca booy yow dañuy xaaral fii dañ fi may message fii nekkul fi nga prouvé fii dañ fi maye sens. kool kool am na ku la jox zone de. 14 zone nee na ba tey am na lu des. waaw normal dañuy jéem mën a gëñu mais yàlla baax na li jot yoom <laughs> aja aja am na ku la jox fii zone bi am nga mais am nga fi ay am na ba tey ñu la jox ay nga di kër yu <laughs> bari kër ah yaa ngi gis li yëpp nga am ci kër. yaa gis li yëpp am ko ci kër. maa ngi di kontaanee rek. waaw yaa yaa yaa gis nga li ko ci kër. doo jëlaat téléphone nee nañ dañuy doog a door mënaguñu téléphone bi da ah, bàyyi. maanaam day ok léegi nañ dem ci euh, li nga xam mooy playback bi parce que euh, neena moom il faut mu playback donc dañ ko ko may euh, bu dee El Hadj Malick son bi ma indiwoon woon dafa noppi mu playback balaa ñuy dem ci fin wu émission bi ànd ak moom ci playback ko defee ñu dem ci mot de la fin yi yaakaar naa gis nga Ibou Diagne yow ak lom mbay pàccax mi téye téléphone am bi ak sama téléphone bi nekk ci live Facebook bi bëgg naa mu xam ni. barki rasulullahi bu fekkee xaalis bi yëpp mbay da ko maye xam nga mbay may nañ ma cent mille ma ne ko na ko maye mayaat nañ ma mais day nekk di kaaf ba maye xaalis bi mu ngi toog naan ma faal affaire yaa ngi dox affaire yaa ngi dox yaa ngi naan ma nii yaa ma nga ñëwaat ci plateau bi ñu régler problème bi ma xool lan moo nekk sama wéef ak sama orange mu ne après yow ñu yeggali euh, bu booy ñu bàyyi la nga play back ah. bu paree kay pare na même si metti yi metti booy metti booy El Hadj bu dee yow yaa ngi baax rek ayca ak metti booy Te quiero, baby, te quiero, eh, baby, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, baby, te quiero, te quiero, te quiero, baby, yo te quiero, olvida el tiempo, estamos amigos. dafa mel ni ñu ngi apprécier ah dafa mel ni euh, gars yi ñu ngi apprécier bu baax a baax a baax yàq yaay Baba jaañ ay Yaxara jaañ moo bëgg xale de nee na ma il est bien. Yaxara merci beaucoup moom du bëgg xale. nee na ma il bien xool baa nga sedd guy waa c'est bon booy bi tarkal la eh, mais booy. Euh, yow lan la âge yow âge euh, bi nga am nii da ngay commencer way di xëcc ay xale di ànd ak ñoom ci waay way wana. quelle carrière. non même pas. ah yow doo way lu sensibiliser ay na xale bi di wuyu yaayam bu ko yaayam yónnee mu yow as boobu nga toll. as boobu tekkeeroo bay bi ay. texte yi ñu jot a bind yu génnagul ñu ngi si ay projet dépêchage ma doon wax ni que si vacances yi nii ñu ngi waajal benn projet de clip xam nga incha allah di ñaan yàlla mu motali lépp incha allah suñu yéene bu jotee benn son bu tudd la galère incha allah la galère. am na solo en tout cas euh, boo booy nga bu am fit ah, lu mën a xew am nga fit et puis osé nga et puis euh, ci milieu bi nga bëgg dugg. il faut nga am fit il faut nga oser il faut a créer te loolu yëpp am na yaa ngi toog maa ngi lay wàññi maa ngi lay napp mais fi nga nekk yaa ngi fa nekk et puis yaa ngi concentré wu ci li def et c'est très important et puis am nga flow quoi tu es ba pare même bu dee écouteur bi nga takk amul dara lu ciy way yaa ngi ko takk loolu flow la loolu loolu daa bokk ci luy gunge artiste di nga artiste bi moom am say feemu bopp kon kii euh, yéen a ngi gisante feneen <laughs> anke a xaaral rek xaaral rek bàyyi sa papa booy sa papa yàgg na ci mbedd mi xaaral rek parce que <laughs> booy bi ñëw na xëcc na yow nga bañ a bañ yaa yomb <laughs> non du loolu du man petit frère am laa non petit frère am laa nga wuyu gis nga ñéeme euh, nga nekk nii faaw nga wow la njéeme tey wax nga mën wax on on tey booy bu la woy ne on xam nga xale bi muy xale ñu yónni ko mu ne on mais njéeme booy bi dafa jox loxo rek nga jël loxo ba pare booy bi laaj ñaari loxo nga jox ñaari loxo jàppale doo jàppale sa bopp jàppale sa bopp ñii du ñuy jàppale boo dee jàppale dinañ la jàppaloo loo xam ne sa yoon nekku ce bu jàppale booy yi <laughs> ah yow mii wér nga nga ma ay papa kenn ma koy jàppale kii ngay jàppale xam nga kii ayca booy euh, fi ñu toll euh, li ñu amoon ci ay waxtu lépp moo jeex fi ñu donc di wax lan mooy projet yi lan ngay rêvé def Euh, ci avenir bi euh, ban hip moom nga teg bët moom nga xalaat ni bëgg nga mel comme ñoom ak kan nga xalaatul ne yow doo mës a mel comme moom. waaw du coup pour commencer man maa ngi wax ni que sama idole ni Nino la moom lay compte à chaque fois. Nino fu mu nekk le rappeur français. da nga da nga tegg suñu rappeur yi fii. non même pas fii damay compte ay rappeurs yu ku si mel ni ñoom Dip ñoom Ngaaka ñoom Wan et tout ça ñoom ñëpp. ok ak ñoom MNN moom mi nga xamante ne impossible prod mooy fu ma dóoree sama single yi ñoom fa lañ nekk. ok ñoom Baye Mass affaire yooyu noonu. ok ok mu ngi cool. léegi nag fi ñu toll nii kan nga xam ni euh, buggoo mel comme moom doo comme moom te nekk fii ci town bi. ma moom. buggoo mel comme moom euh, àndoog moom ku la soof la. ba loolu parce que loolu doo ko laaj kenn kuy way euh, ci ay musique ay mbalax hip hopeur moo la ñeme taxaw am fit la kii neexuma. du ma ànd ak moom du ma way ak moom loolu hip hopeur rek ko sañ moo lay wan ni kii am na avenir tey jii ku sa sañ a taxaw wax loolu rek moo lay wan ni am na bu jaay même ma yeggali lii ku sañ taxaw wax la loolu rek moo lay wan ni am na avenir parce que boo yi fi nekk di prouve yëpp nekk au top maam bi ñuy nekk xale ñoom xamoon nañ ni du ñu ànd ak kii bëgguñu ne yow kat nga xam ni doo ànd ak moom buggoo mel comme moom. waaw man de. du ma ne bugguma mel ni diw mais genre. lenn mën naa non lenn mën naa xaw non non lenn mën naa xaw parce que yow. loxol nga xamante ne bugguma mel ni ñoom. loxol génn mooy kan waaw tàq rek da nga xamante ne genre donc constant. waaw loolu moom nañu kan exemple. waaw bëri nañ. mais dañuy suñu waxee bàyyi booy euh, yow xanaa du rab bu yow. xanaa amul lu ñuy ragal ñu doo rappeur an kay an kay yaa ngi ragal kay ban rappeur nga xam ni buggoo mel comme moom eh, neel kii bugguma mel comme moom. xam naa rappeur bu ma bëgg mel ni comme moom moom genre sans pause mu ngi fii ki nga bëgg mel comme moom. waaw Samba ngi fi am nga guub. waaye Samba Peuzzi kon Samba du wax ak Matadi Samba Peuzzi du wax ak euh, Kële euh, keneen ki euh, ah Pa Ngaaka keneen ki keneen ki booy kii bi rek portugees bi booy metti bi tey saaga rek Samba Peuzzi moom Agapès duñu laalante kon yow bu dee nga bëgg mel comme Samba Peuzzi mooy yow bëggoo mel comme Matadi wala bëggoo mel comme Agapès. waaw bu ma wàllu jëm kaw mais Matadi moom ba mooy lool. <laughs> yow Matadi dina la rey. Eh. sa papa wax lool. bëggum non bëgguma ko ma yóbbu mais genre am nga am nga am nga sa droit wax ki nga bëgg cons ak ki nga bëggul cons. kenn du la ci rey. fa fa nga dëgg. man ah. ñaari tali laa dëgg. Matari booy bi ñaari tali la dëgg booy ñaari tali la. ak Kër Masar ban koñ. fan nga ëpp looy nekk ci ah, ñaari tali ak. ñun ñun booy ñun booy ñaari tali amul ñuy daw. amul lu ñuy daw waaw. ok bu la Matari fekkee suñu koñ ah, eh, fi eh, fi ñu toll nii ñu amoon ci eh, temps yëpp moo jeex donc ñu ngi lay kontaanee bu baax di la souhaiter une très bonne continuation yal na yàlla sàmm yal na yàlla yàlla taxawu la yoon bi nga nekk ni baax na études yi ñu boole ko ak la musique am na foo ci yem maanaam da ngay soxla étude bu baax a baax donc temps bi nga ci toll nii jàngal jàngal jàngal ba pare du la xañ dara ci sa musique bëri na ay Canabas exemple ay El Jazz na ay woykat yoo xam ni dañoo jàng ba nekk ay crack donc soo ko dugg ci hip bi donc mën na continuer mën nga jàng boole kook études yi donc mën nga tàggu euh, nuyu seen waa koñ nuyu sa waa gaal leen nuyu ñëpp après ñu yeggali. yow merci beaucoup si conseil et tout plaisir dina ma gën a booster gën ma yokk confiance ma gën a gëm sama bopp. xam nga mhm. gën a xam mhm. fi may teg sama tànk. waaw de passage nuyu sama yaay mi nga xamante moom seetaanu ma benn yoon début bi newoon na ma bu si dugg et tout ça si jàng bi et tout mais bët xam nga dem na ba xam xam na xam na ni que man may def nii gëm te bëgg déku xam nga mu mun ma wóolu bàyyi ma pour ma dem ci incha allah ak sama papa ak ñoom ñëpp ngi leen di béggee bu baax. sama sœur yi sama frère yi waaw ku lim jum quoi. waaw mooy loolu noonu baax na noonu baax na ñu ngi lay kontaanee bu baax. waaw ak sama gars yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ci ligne bi di boobu naan man booy yow rek la ñuy xaare tout ça. xam naa instant bii nii moom mooy loolu. yaa ma gën a xam yaaral ma leen. yaaral ma leen bu baax di la kontaane yow a baax. on est là pour vous euh, ma nga wax ma euh, ñaata moom laa am foofu euh, bu ko defee le temps sama doom ji di. tàggatoo moom itamit di sant ak ay partenaire di gërëm defa lu la neex mets-toi à l'aise doom fii sa plateau baay la def fi lu la neex koo fi def dalaa dagan alors <laughs> papa maa ngi béggewaat ah, ki nga xamante ni mooy cëf borom kolobaan ah, mhm. wax naa leen ko damaa bëgg nga jël ma jupe bi parce que tey ah, jupe bi comme démb rek génne na ma ci jupe tey itam mu waat ma ci suba incha allah dinaa ñëw ak moom ci ensemble bu dóob. fan yii moom mu lay yàq moom. waaw waaw waaw waaw waaw macha allah donc ah jupe bu nice am fant tuuti ci ginnaaw. ndax dafa tàng. waneel sa yëf waaw mi ngi noonu. alors euh, ma di ko bëggee bu baax a baax cëf VIP shop ah borom Colobane ah mi ngi foofu ca marché. Euh, Euh, marché Gambi waaw marché Gambi la benn boutique bi nekk beneen bi ci topp mi ngi nekk ci euh, centre commercial bi nekk ci garage yu euh, Colobane boobu nag Momo moo fa nekk ku ko bëgg jot da ngay def 78 136 90 41 moom ki nga xamante ne mooy cëf ah, di Baye Cheikh maa ngi koy bëggee bu baax a baax boo ko bëggee jot da ngay def 77 724 07 83 bu ko defee mu jox leen li nga xamante ne ni mooy li ngeen bëgg wax naa leen ko woo leen ko boo leen ko woowee jaru ngeen di déplacé am na cak-cak yi ñi ngi fa euh, dina leen wan lépp li nga xamante ni mooy bagage yu muy jaay te am na yeneen ñuy waajal ñëw incha allah nee na ma même pas une semaine ñu indi arrivage bu bees couleur yu bees ak li nga xamante ni mooy lu fashion qualité itam yi nga xamante ni moo gën ci li nga xam ne mooy été bi woo leen ko léegi léegi ac am na solo donc di kontaan ci ñi toogoon seen i kër di ñu bàyyi xel euh, di bég ci euh, ñëpp rek ñoo xam ne ñun ñu doon seetaan di kontaan ana ñi anniversaire tey naa xool tey kan ak kan mooy anniversaire bëgg naa xool ñi anniversaire kii kan la am anniversaire à notre ami ah Amdi Moustapha Seck euh, ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire Amdi dundal lu bare bare bari loo dund doyul euh, ñu ngi lay souhaiter nga dund le meilleur ah dundal la totale bu baax a baax di souhaiter un bon anniversaire aussi euh, à Baxaw Diagne de Montois Immobilier Baxaw Diagne joyeux anniversaire à toi Baxaw loo dund doyul borom kër yu baax yi borom sanitaire yu baax yi neex a fekk point 1 moom la dénk suñu papa imam loo dund rek euh, loolu doyul tarkalla mon toit immobilier euh, mooy suñu kër mon toit immobilier lu ñu bëgg ci xeetu ay yu baax rek foofu la ñuy dem donc Baxaw Diagne yaa bokk ak Tutu Diagne yaa bokk ak Maria Mané euh, tarkalla yàlla yàlla sàmm la loo dund doyul joyeux anniversaire à noonu laa mën a def pour wax ci mon toit immobilier men des anniversaire te anniversaire bu ah, Bouba Gueye joyeux anniversaire Bouba Gueye maître Bouba Gueye happy birthday to you mon xaw ma mon neveu maître Adama Gueye mooy baayam tarkal la euh, moom doonul baayam dafa doon baayam xale la bu am jom am fulla am fayda xale bu organisé ah tarkal la euh, lu ma neex laa koy def lu ma neex laa koy wax moom bu baa Gueye match yu ñuy football yëpp mu organisé sonn ah état yi gars yi am yëpp état daam yeeg état d'esprit yëpp il gère euh, parfois mu metti moom lool mais mu géré waaye tarkal la ku def lu ko neex mu baal la man su ma defee tuuti mu bindal ma article loolu tamit euh, yàlla na ko ci yàlla suñu borom fay yàlla na yàlla atteg moom euh, mais joyeux anniversaire frérot maa ngi lay souhaiter un bon anniversaire béggee nga enjoy yàlla fay la sa xol ku disponible la ku baax la yàlla na ko bu baax moom bu baax gay donc mbay bu defee li ma amoon ci waxtu man dafa na nga xam ni. Mm-hmm. parce que démb yaa ko fi wax ne da ngeen war a football. Mm-hmm. ñoom ay xale lañu yor. nee naa la wax yóbbante. nee leen bu ñu yaakaaree ne. ku ci bu ñu yaakaaree ni média yi. ñun xamuñu ñi ñi fay liggéey. Mm-hmm. ne leen juum nañ. ne leen xammee nañ jouru nawetaan yeeg jouru championnat yi ne leen ñun yàgg nañ ci compétition bu mel ni euh, le tournoi des médias xam nañ ko xam nañ ñi ñuy sélectionné di indi xam nañ ñi nga xam ne ñooy ñëw xam nañ ñi bokkul ci média yëpp xam nañ am na porté plainte am na forfait am na lépp waaw wax leen loolu yëpp am na parce que ñoom ñooy jël ci sit yëpp tournoi yi ñu fay teg ñoom ñoo koy jël ne ñun xam nañ ñun informé nañ informé wu nañ ci ñun bokkal pool wal fajiri ñun xàmmee nañ ñoom caamaas xam nañ leen saa njóogu xam nañ ko xam nañ jóor yi ak ñoom bi tey xam nañ leen wal fajiri keneen ku ñëw keneen ku ñëw ñoog ñoom la la 2STV bi ñun xam nañ xësaa xam Pape Sidi xam nañ ña fa ne xam nañ techniciens yi xam nga 2STV moom nekk naa fa moom def naa fa at moo xam ni parcelle la ñuy ay bàyyi ma leeral yow. xam naa waa leeral ak ak Cheikh mi fay waaj a dem. ak a dem. ah yaa ma ko yow néewoo ne ma Cheikh day day dem leeral. may la woo naa Cheikh na ñëw fii ak Xiru Zaman nga ne ñëw fii day dem leeral. nañ xool sama web Bosco maa ngi lay bëggee bu baax a baax moom day nuyoo rek ma ma ma Balla ndeysaan daf may jàppale papa dama bëggoon a dama ubbi web bi xool ñaari dama xooloon trois internautes yoo xam ne dañ ma dañ ma marqué ma doon leen may mais dafa mel ni web bi dafa 15 francs waaw mais 15 francs nga bàyyi ci web bi dama topp non non non euh, euh, kii euh, baal ma nga jël mbay 15 francs nga bàyyi ci web bi mu maye bi laa topp barki Serigne Touba tey live bi dafa daw sama yaram <laughs> tey live bi dafa daw sama yaram Fall barki Serigne Touba Mbacke même orange moom viré naa ko de Fall. yow Mbaye barki nooy amoo xel barki sëñ Diop nooy amoo xel yow. baatoo la nga de nooy yow baatoo la nga. nooy yow vrai baatoo la nga yow yow 15 francs moom nga bàyyi sa wéef bi. 15 francs la bàyyi fi. mais wéef bi amul woon ay amoon na 75.